danaka sama xol dafa xawa dafa xawa fess fees duggé ci marché bi lima ma wallahi alazim man rek mako xam ak yalla ndax lu metti ken du ko son non sax mbokk ak ki nga dekkal ñun amuñu luddul kaolak bëgguñu lu dul Kaolack lu ñu am Kaolack moo ñu ko gënal marché bii ni mu lakkee ñaata njaboot ñaata njaboot ñooy toog tey di am problème maanaam di am problème di am problème dépense suñu yaay yi suñu papa yi li ñu fiy daw 2000 francs la ak 3000 ñuy yóbbu seen kër yi pour dépense ma dugg gis ma xam ñoo xam ne tey ñu ngi ci biir marché bi am ay tolof tolof seen bagage lakk balaa ñuy maanaam balaa ñuy amaat dara dina mën ñetti weer wala ñaari weer pour ñu mun a am maanaam pour ñu amaat suuful ay waay suñu autorités yi dama leen di ñaan nit ñi bu ñu nekkee ci tolof tolof ñëw leen ànd ñoom même bu ñu nekku ci tolof tolof ñëw leen ngeen dimbali population bi parce que ndomba tànk yi ngeen am di toog seen bureau yi climatisé di dugg seen oto yi climatisé ay nit ñoo nekk ci biir marché bi di daw ngir njaboot. ay waat ngir yalla bu len politiser li politiser bu politiquer nañ dimbali nit ñi ta yalla tax nañ tax ku wax leneen politique li la def union pour jàppalante pour dimbali suñu ak suñu askan ak suñu population manam man ñëw mu fi ngir politique dama ñëw ngir lancer appel population bi ak suñu autorités yi ñu taxaw dimbali suñu commerçant yi nga xamne manam jey gi da len dal lima naxari ni musuma ko man maanaam musuma am luma naxari ni parce que tay suma xalaté suma démé sama kër tal sama climatiseur ma tal sama auto tal sama climatiseur suma démé ñu tégal ma sama lenak, jot ma agn wallahi la am na ñoo xamne tay taluñ donc ma ngi leen di di leen gërëm euh, lu symbolique la manam comité manam dama dama ko joxe lu symbolique la waaye samedi bii di ñëw incha allahu rabbi samedi wala dimanche ndax du duma wax lii dañ am na loo xam ne préparé naa ko dama jógee Dakar uniquement pour lii waaye su ma ñëwee ndax nu maa matal lépp waaye dinaa am loo xam ne dinaa ko def dinaa ko def loo xam ne ci comité bi laa koy def teg aussi tamit jeunesse bi laay waxal jeunesse bi man jeunesse bi laa gën di waxal parce que ndaw moo yor réew ay waa nañ leen jàppale jeunesse bi suñu papa yi li ñi daw seen doom yi la ñan ñoy xalé yi xalé ñoy jeunesse bi kon nañ leen jàppale dimbali leen ta yalla tax. ah délégation bu am yaakar la ndax li ma li tax ma ne dafa am yaakar moy ay yi kessé la ay yi kessé lañ bu leen neexoon mënon nañ seen baña fekk mënon ngeen ñew rek di seetaan wala ngeen di dégg di commenter waye ngeen jog na jité seen mouvement. mouvement bi ni ngeen ko tuddee mooy Kaolack ñu yeewu parce que yeewu nag jot na te yooyu tànk yooyu moom yéen a ci kon tànk yi ngeen nekk nit ñi xam nañ ko ba ngeen ko déggee ngeen woote téléphone renseigné wu xam ànd ak ñëpp ñëw parce que bi ngeen di ñëw fii ay ndaw rek ñoo leen fi indi ay ndaw seeni moroom te ñu nekk ci biir marché bi bokk ak yéen lépp ku mel ni aas ak xaadim ak ñimma ñoom ñëpp ak sëñ mor mbay ngeen ànd ak ñoom ñooñu nekk ci marché bi li tawara waral nag ñooñu bu ñu xëy fii la ñuy daan seen doole xamewul leen leen si ñàkk fayda wala ñàkk fulla dañuy liggéey ngeen yëg na am na lu leen dal ngeen ñëw te bu ngeen ñëwutoon timit kenn du leen ko toppee ngeen ñëw ba pare lancer fi benn message boo xamante ni message boobu moo am solo mooy mooy suñu soxal suñu soxla ñun mooy lii fi lii fi nekk muy lakk gii bëgg soxlawuñ si kenn di ko politiquer li ma wax fii léegi rek mooy liñ soxla daal mooy na fi mbaar mi jóge mooy délégation boo xam ne ay ndaw yi kese lañ yoo xamante ni mën nañoo xëy nekk seen occupation nekk seen bopp kenn du leen wax dara kenn doon waaye ñu yëg benn métit boo xamante ni Kaolack la Kaolack ñor leen ñu bokkook ñoom oh loolu de amal na la si cant amal nañ si ngërëm bu amut ak yem ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant bu baax a baax.